salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen bëggee euh, di kontaan ci yéen di leen ñaanal jàmm ak euh, salaam information yu teewul ginnaaw ba sàkkoo ci yéen abonnement yi ba mas ñu dem euh, bala noo jëm ci merengue yi dañu ñëw ci li nga xam ne nag moo nekk footballkat bii ngeen di gis di ab gardien moom nag sës ni la tudd gaa yi lu garaaw maanaam scénario boo xam ne bu am solo la moom wërsëgu tan la yor ndax bu ñu xoolee mais moom mooy benn gardien ci gardien yi ñu proposé Barcelone bu Barcelone yëkkati aw kayit wax moom moom mii di sës ni tey sàkku ci moom nag euh, amoon na retraite bu mu annoncé woon depuis deux mois ne day bëgg a bàyyi li nga xam ne mooy gardien Barcelone bëgg na koo dugalaat ci sa mbaxloo bi ngir lan ngir mu mën a ñëw téel ko ay camp juróom-ñetti weer maanaam peut-être contrat bu un an la ñuy signé naa dabar ñi gaa yi yokkaatu contrat mbiram mi ngi commencé bëgg a tegu ci yoon ci digganteem ak Barcelone ñiy topp Barcelone nag ngir bëgg faa ñëw bari na lool ndax Barcelone club la bu mag boo xam ne ah, képp kum ci man di doon di jàpp ay bal bëgg nga bis ñëw nga ànd ak moom ñu concentré enseigné ah, ci li nga xam ne daanaka mooy euh, merengue yi waaye bala ñoo dem ci merengue yi dañuy wax di information boobu gunu gëstu la nag ba mu doon dëgg ba Barcelone daanaka fi ñu toll nii mi ngi ci biir lijjanti yooyee pour mën a lijjanti sës nii mu ñëw ah, teel ko ay camp mu am solo bu baax a baax ñu enseigné xibaar yu wér te wóor yi ak li nga xam ne mooy compo officiel bu Real Madrid compo officiel ba uh, wadd na uh, ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé moo uh, moom moo nekk ci li nga xam maanaam ki li bi ki nga di di di Vinicius moom it ci li nga xam ne mooy beneen côté bi kon yaakaar naa ne fi mu attaque de trois la gars teg ci taabal ji digg militaire bi nag lépp a ngi tolloo ma gis fa nag international français bi nga xam ne moo nekk nekk kile di euh, maanaam euh, Tchouaméni Choupo-Moting ak Fede Valverde moom it ci digg militaire bi ak kile nga xam ne daanaka mooy Jude Bellingham l'international anglais gars yi euh, bégg naa leen ngeen topp information yi yow mi agsi fii nga def sa abonnement abonnement bi dina tax lu dugal nga mën ko am bu dee ci défense bi nag nga mën fa am Lucas Vázquez côté ndijoor gi kile nga xam ne daanaka moo nekk international bile di ab français Mendy ci côté càmmoñ bi Rudiger Seck kile nga xam ne mooy Édouard Éder Militão Falcao bu ko defee mu nekk complet ak gardien bii di euh, meilleur gardien du monde di euh, Thibaut Courtois di ab Belge gars yi ngeen gis ni kon compo bi nice na jaar na yoon loolu la fi ma doon ci information